المقامة الثالثة عشرة البغدادية مقامة فكيل أنيت مؤسكنة بغداد روى صلاتنا الحارس بن همام قال ننا ندوتو بنتي ونا بنتي ونا بضواحي الزورة تبالي بغداد الزورة ترو benn dex la bu nekk ca Baxdaad moo tax dëkk bi yëpp ñu di ko woowee Zawra muy daj la dex gu siiw googu nadawtu pencu naa pencu mooy daje naa ci penc ma toog naa ci penc ma bi dawaaxi Zawra ci banlieey Baxdaad dawaax yi mooy jamu daaxiya maa mashiqatin ànd ak ay mag min a shuara ci waykat ya aji rawante lahum ñeel leen bi xubaarin ci pënd mubaarin ismu manquus la ismu manquus bu dee nakira da ngay xadaf yaa ba tanwin la ko njëkk mooy faaxilu yaxlaqu mubaarin bi dammatin muqaddara ala yaa in maxduba waaw saa bu eh, yaa ngi dellu al mubaari wala mubaarika wala yajri du daw maawum ànd ak ñoom mumaarin aji werante cim lef kuy waranteeg ñoom dañ lay raw du ngeen tolloo sax du ngeen bokk lef mu ngeen di daw fa afadna ñu xuus ñu xuus fii xadiisin ci waxtaan woo xam ne yafdaxu dana gàcceel al azhaara fuloria ilaa an nasafna ba diggal nañ an nahaara bëccëg ba ñu xuus ci waxtaan woo xam ne wu la ba gàcceel ay fleur ba digg bëccëg falamma xaada ba ngiisee darul afkaar jooxu xalaat ya wasabat jàng an nufuusu bakkan yi ilal awkaari jëm ca tàgg ya la naa lañ gendee ko ajuusan am màggat mu jigéen ne biñ demee ba ca waxtu woowa sonn nag ku ne xalaata dellu këram saba sabat jeng na an nufuusu bakkan ya ilal awkaar jëm ca tàgg ya tàgg tàggum picc waaye kër yaag néegi la jublu lañ seen benn ajuus muy am màggat mu jigéen tuqbilu muy jublu si minal boxdi tukkee ci sori wa tuxdiru muy daw ixdaaral jordi kem daw fas yu gàtt kawar ya fas yu firgee jurdu mooy jamu ajrat ajrat jardaaw jordu xam nga ko waqat istalat mbir moom sàkku naa topp lu sibiyatan ay xale ay xale nga topp ci gannaawam an xafa yoo xam ne ñoo gën من المغازل تي اي بانتي كتشو واضعف نو غنا دوايا دي من الجوازل تي اي تشوجو فتح فما كذب نيول جان يخمت لو درا اسرا ادنا بام نيو غيسي ان عربنا تي مو غار نيو بام نيو غيسي رك لا جوبلو نيو تي نيون حتى اذا ما حضرنا باتيوال نيو <clears throat> قال موحلي bi mu ñëwee mu ne xayaa yàlla na dundal allahu yàlla al maarifa xarkanam maarif mooy jamu maaraf mooy xàmmeekaayu nit mooy al wajhu al maaraf xayaa euh, yàlla dundal allahu yàlla al maarifa xarkanam euh, wa in lam yakun doonte nekkuñ maarifa di ñu ñu doonte xawma leen iclamu xam leen yaa ma'aalal aamili yéen dellukaayu aji mébét wa simaalal araamili yéen wéerukaayu miskiin yi araamil mooy ñoo xam ne seen dañoo dañoo jeexal amatuñ dara wa abyadu yustasqa alxamaamu bi wajhihi simaalul yataama ismatun lil araamili na waykat bi doon merale yonente bi sallallahu alayhi wa sallam muy bàyyi taxam abbas ibnu abdil mutalib وسمار الأرامل أني قملا اعلم وقملا أني نكمن من ثروات القبائل ما يبوك تي سنغ جيري سريو موي كليفة غطابة أب سنغ ما يبوك تي سنغ جيري وسريات العقائل بوك تي ويكتك درجة تانفي لم يزل مصر أهلي سماواكر وبعلي أكسما جكر Yahuluna di as asadra ca denni mbolo ya manam buñu demé ci jotay ci digg ba lañuy tok ca kilifa yi la wa yasiruna ñuy dox alqalba ca xolu mbolo ya wa yumtuna ñuy war az-dhuhra gannaaw ya dañuy war ci kaw gannaaw yi gilemi wala wa yumtuna dañuy waral yamtu moy dana war waye yumtu wala yumti dana waral njokk waaw jamaa yumtuuna danañ waral az-dhuhra dañ daan may ay nit ay gilem di leen ko jox ñuy war wa yuuluuna ñuy méngale alyada xéewal wa euh, maanaam dañ daan joxe ay xéewal dañuy dimbale nit ñi bañ koy jekkoo waaye nag falamma arda ba xalagee addahru jamono al acdaada ndimbal wa fajaa mu méttital al akbaada res bil jawaarixi ca euh, cër wan xalab mu wëlbatiku moom jamono baxran la féete woon kaw li batnin jëm ci biir léegi nabaa yëkkatiku annaadiru aji xool ji ku ñu daan xool bëtu màggal tey amatu ñu soxla wa jafa beccingel na alxaaji bu aji yiir ja wa dahabat dem alaynu kee wa faqidat ñàkkeef arraxatu noflaay wa salada géem azandu doju béy léegi boo kocclaante ñaari doj yi sax du tàkk du génne sawara wa wahanat doye di alyaminu kattan la wa daa sànku alyasaaru koom-koom bi وبانت فتي المرافق نجرينيا ولم يبقى دسول لنا نيل نسانية ولا ناب آه، سانية جلم سانية ولا ناب جاكن جلم كمك دسيتون دارا يسنا بعد مي جفن لكو مي الصدر القلب الظهر اليد آه، الأعضاء الجوارح الأكبر الظهر بطن الناظر أبي أقول الله خمجي نقوبت ولا الحاجب أيين ولا العين بط ولا الرعب ولا الزند فرق ولا يمين دايجور يسار كامون maraafeq ay conco naab sàll te yooyu yëpp taxu koo jóg benn ci yooyu taxu koo jóg niñ ko firee rek noonu nga koy firee xam nga li wax de léegi nag mu ñëw ci couleur yi mu ne fa mu dex barra diiru fagg na al ayshu dund al axdaru bay aji natax dund bi taaroon natax bart tey léegi fagg na yor beneen couleur was warra jeng al mahbubu luñ sopp la al asfar lay aji zone te mooy wër sa xaalis rek da léegi ñuul na yow mi sama bëccëg al abyad bay aji weex wab yadda weex faw sama jubbu al aswad bay aji ñuul sama kawar gi ñuuloon tey weex na béjaaw na xataa rasa ba yërëm lii ñeel ma yërëm na ma al aduwu noon al azraq bay aji bula noon bu tar am noono tey daf ma yërëm fa xabada baax na lii almawt aka neexoon ma dee almawtul ahmar dee gu xonq dee gi nga xam ne goo jàkkaarloog muy ñëw mënoo caa mucc de ki mbettel wala de ci rayinu ñaaw ni nit yàlla mootul ahmar watil wi aji top la ma man ni nga xamne taraw na da ngeen len gis xali yi ngeen gis ni ak niñ ragge amna aynu batam bëtam moy ak fodem bo xole beut bi rek xamne ne eh, xam la nga xamne ne ku sonu ko aajo ndimbal ngi wa tarjumanu ak leeral mbiram entrepreneur tam israro ak sonam moy yaram ni soppe ko bi'yati ahadihim wala quswa bu'yati ahadihim gën gaa sori cakute kenn ci ñoom dañuy sakku la ci gëna sori sorda moy ñam wi ñu dee sarit wa sorry, umniyati gën ambu sori tam burda moy ambu mum sol wa kuntu alaytu man gënon na an ci ne la abdul duma yulli al hurra, sama ndoxum xar kanam illa lil hurra dara ñal gor gënon na ne duma dem ci kenn di wax sama soxla diko ñaan duma yulli al hurra ndoxum xar kanam illa lil hurm loolu ko xamne ku gore la walaw an nak doon naka man muttu namm namaa dee mina duri ngir lor waxat naa de yar nak man al qarunatu bakan bi bi an tuje da fekke bi andikum fa al almauna ndimbal sama bakan dal mom won ne yéen ñu baax yen bu ma ñew da ngeen ma dimbal wa adanatni qamal ma firasatul hawba ba bakan bakkan bakan bi موما خمال بأنكم نكي ينابيع الحبا يني سيون داي مي فالنظر يالنا نتعل الله إمران تمسو خمني أبرا دقلنا خاسمي سمان قيلا نككو قرأ كما يدمبلي وصدق مدقل توسمي سمك دفاي سمان جرد ونظر إلى مقالمة بعين تبد بو خمني يقضيها دنك اللاس الجمود وي ويقضيها دنك دند اللاس الجود أكتب كون بمني نيل لن نيل وحا أجنوم قال الحارث بن حمام ne fahimna ñu gëlëm min hama yahimu li baraati ibaratiha ngir raw ay ibaram wa mulax istiaratiha ak yu xorom istiaram baat yi mi abu di jublu yeneen maanaa yu bokkul ak yoo ko taxoon a jóg comme ni nga ko gisee istiara yi wa qulna laha ñu ne ko waaw yow day qad fatana fitnaale na kalaamu ki sa wax waaw fa kayfa ilhaamu ki naka sa rab yow comme da ngay wax ni rek di yéeme boo wayoon nu muy mel fa xaalal mu ne man ufajjiru damay ballaloo asara aw doj bu ma waaye doj bi sax day génne ndox wala faxrata ndamuma li am rek la wax faqul naa ñu ne ko in jaaltinaa boo ñu defee min ruwaatiki ñu bokk ci way nettali sa way lam nabxal duñ nay bi ma waasaatiki dimbalante yow boo ñu waylee bañ man fee jógee di ko nettali di nettali say way day dañ la dimbale fa qaalat mu ngi leen la uri yan nakum dama leen di wan awalan ci njëlbeen chaar sama njiit laay li ne sama biir suma la uraw yi yan nakum topp ma solool leen ashari samay way léegi nag fa abrasat mu génne rudd na dirain loxol mbubu tarisin bu ràpp wa bërzat mu feeñ birzata ajusin feeñaayu màggat mu jigéen moo xam dar dabisin ak njuuma la wa ansha taqul mu commencé di wax bayit yi wa ansha taqul mu commencé di wax bayit ashku ila allah ishtika al marid ريب الزمان المتعد البعيد انا أشكو مانجي جامبات إلى الله جمتي يلا مانجي جنبت يلا اشتكى المريض كم جامباتك أجي توت أجي فيبر أه، الشكوى موي جامبات جنبت يلا نك بعد بي نياري ونتي القرآن إنما أشكو بثي وعزني إلى الله لا يونتي على يعقوب عليه السلام وعون بمنا كيدوم جا يونتي على يوسف عليه السلام بنين بموي قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله إنما أشكو بثي وعزني إلى الله wa tashtaki ila allah moo tax mu ne ashku ila allahi kon ma ngi jambat yalla jambat yalla moy di wax sama soxla di ñaan ishtika al maridi kam jambatu aji tawat lan lay jàmbat mooy rayba zamani sikku jamono al mutaaddi jamono bi aji jalgati al baghit badi buñu bañ jamono ji nga xam ne léppam ay coono ki jafe-jafe la yaa qawmi yéen samaw nit yaaw mutakallim moo fi nekkoon ñu xadaf ko yaa mi yéen samaw nit inni min unaasin maa ngi bokk ci nit ñoo xam ne xonaw sax nañ daxran jamono bu yàgg wa jafnu daxri te bëtu jamono xadidun lu ñu damm la anhum waris leen bu ñu waxee ne eh, jamono xool na ko bët bu aay mooy mi ngi ci ay coonaaki jafe-jafe tena man nag maa ngi bokk ci nit ñoo xam ne sax nañ jamono bu yàgg eh, jamono damm ay bëtam xoolut leen maanaam ñu am jàmm di dund dund bu neex kon xanaw sax nañ daxaran jamono wa nu daxari fekk bëtu mbaru bëtu jamono xadidun lu ñu damm la anhum walif leen fail bu yor maanaam maful la xadid bi maanaam maxduud maa ngi bokk ci nit ñoo xam ne faqaaruhum seen ndam laysa lahu deddi ñel ko daafiun aji jañ saala saailum bi adabi waaqi bu ci topp lil kaafiriina laysa lahu daafi nee na maa ngi bokk ci nit ñoo xam ne seen ndam kenn mënu koo jañ loo dañoo am ndam lu rëy wasiituhum seen daraja mustafid aji bëbb la bay na la waraa ci diggante mbindeef seen daraja lu siiw la lu ñëpp xam la kaanu nekkoon nañ idaa ma nujaatun ndem ak jéggi nujaa mooy seeti àll yu naat ya ngir yóbbu fa say gëléem say nag say xar pour sàmm leen ida ma nujaatu ndem ak jéggi awasat jafe na fi sanati ca at ashahba bay aji tar ab bekoor ñoom nekkoon nañ rawdan di toolu jardin arid bu naat maa ngi bokk ci nit ñoo xam ne bu nit ñi nekkaan ci jafe-jafe bekkoor ñëpp ci ñoom lañuy ñëw ñu di leen dimbale waaw moo tax bu nekkee fi sana xam nga amun mooy at wala xawlun at amun awaam xawlu axwaal muy ay at waaye sanatun mooy atum bekkoor at mu metti siniin mu dal ca ashahba at moo xam ne bekkoor bu tar la at mu metti bu amaan rek ba kenn mënta jéggi ba gis àll bu naat boo sàmmee loolu mooy ñëpp a ci jafe-jafe ñoom dañuy nekk rawdan rawdan mooy xabaru kaana kaanu rawdan di ay toolu dër arid bu naat daa xool lafdu bi rek moo tax mu waxee noonu waaye rawdu mooy jamu rawda toolu dër tool buñ defar ay fleur buñ buñ ay fleur bu taaru bu àndeek dañ koo miire wala dañ koo ñàkk muy xadiqa xadaayaq di jamoo bi arid mooy firi aji naat ñi ko jëlee ci ardu arab day wax waxin wu mel noonu day wax yawmun aywam wala laylun aliyal laylun aliyal guddi gu tarak lëndëm yawmun aywam بچك بوتر ابتانغاي عام اعوم عام اعوم ونهر انهر ارض اريد كذلك ولا ارض اريضه بس ارض مؤنث ارض اريضه مو يشوف سنات تشبو دفنا تال نيرانهم سين سورا تشبو فعل مضارع مبني للمجهول نيران ماي نايف عالم مرفوع بالضمة لأنه جمع تكسير وهو مضاف هم مضاف إليه مبني على السكون في محل الجر تشبه def na taal niiraanuhum seen safara lissaarina ñeel way rañaan ñii rañaan mooy ñii dox guddi maa ngi bokkoon ci nit ñoo xam ne ci aaday arab way woomal yu taba yi dañuy taal sawara guddi ku xiif wala kuy tukki ba tumuraange caale boo seenee sawar sa rek dem fa ñu rendi la ay gàtt berndel la moo tax maa ngi bokkoon ci nit ñoo xam ne loolu lañ daan def tushabbu niiraanuhum lissaariina wa yutimuuna dañuy leel addayfa gan laxman ndawal goo xam ne xarit ndawal gu bees la dañ koy rendi léegi wala lojal ko gërëm léegi toggal ko jox ko mu lekk moom lañ daan leel gan laxman xaridan ndawal gu bees ما بات مستفنان جارم دكندو لهم نيلن ساغبا دي اجي قيف يوم دانيو ديمبالي سيني دكندو دون سيتان بن دكندو مي فران وقيف الصغب المصغب موي قيف او يطعام في يوم ذي مزغبة المزغبة موي قيف ساغب اجي قيف نانا سين دكندو مسولا فنانو ابقيف ولا قال مستوى لروع غير امتيت نحال الجريد سين دكندو مسولا توك نان حال الجريد دون القريض داي جونجو بن مسال بن ليب بن شاعر لون جاهليه الاولى موي عبيد بن الابرس don dundu jamono yi ben buur bu kacior Nu'man Nu'man da amon ñaari bes, dafa amon yow mu bu'sin wala yawmu shaqawa shaqaawa bésub wa yawmu nu'ma ak bésu xéewal yawmu bu'su bi bu génnee kum njëkk dajal rek dalay ray ak mën mënti don ak lo mën mën mënti def ak lu mënti xew rek mom dalay ray mom yawmu nu'ma bu génnee kum njëkk dajal dalay may alal ba nga doyal benn bés mu génn ci yow mu busu euh, taseeg shaacir boobu muy Ubayd al Abras te Ubayd al Abras xaritam la woon ku ko jege woon la euh, Nu'maan ne ko aka neexoon aka neexoon ma dajeeg yow beneen bés bu bokkul ak tey ne ko nag faw dama lay rey ndax dama dajeeg yow ci yow mu buus waxal loo bëgg rek ma defal la ko ba mu def sa bakkan rey gi ma mënta ñàkk faw dama lay rey Ubayd ibnul Abras ne ko man de aw ma dara lu ma bëgg ndax sama bakkan mooy li gën a foor ci man boo ma bu dee danga may ray kay rayal rek waaye soxla ma la leen la azza alayya min nafsi buur bi ne ko ah waaw ray ray gi moom mënta ñàkk faw danaa la ray tey léegi saddal ma ci say way wayal ma ma dégg bala ma rey shaar bi ne ko xaalal jaridu duunal qarid xaalal jarid duunal qarid al jarid mooy fot fotum dee man dee teew sama kanam moo dox sama digg way taluma ay way lay loolu arab yi def ko masal nag ku nekk ci jafe-jafe boo xam ne tax na talul yeneen i mbir ñu ne xaalal jari dunal xarit ñoom duñ seetaan seen dëkkandoo ba muy nekk ci jafe-jafe naan xaalal jarit dunal xarib du xam nga li nga wax bu baax de al jarit mooy koo xam ne da doon lekk fot am lu tag bañ a jàll waaye nag ñu ci jublu jariñ fotum dee mooy boo xam dee dikkal na ko te du dellu gannaaw fa xayadat ñiisal na minhum ci ñoom surufu rada soppeekuy alkande bixaara juudin géeji tab géeji tab lam naqal ha yoo xam ne mësuñ koo njort ne taxit dana ñiis dana jafe-jafe jamonoog tartari moo sànk seen alal ba alal ju bari ja meloni geej ñu tabé ca lool léew gi ndox ma ngiss na dara sutu fa te musu ñu yaakar lool dana am fa na euh, minhum ci ñoom surufu rada soppi kuy alkande bi xaara juudin géeji tab yo xamne lam naqal ha njortu wuñ len won taxi ñuy ngiss wa udi'a denkef na minhum ci ñoom butunu sara bir suuf ñu bërit ñoom faatu nañ ba denc nañ len ci bir suuf له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت السرى رجل أنصار لك سورة الطاها السرى موي موي بير شوف أصد التحامي بير مني جين دي آر وأسات المريض تي دكتوري أجي فيبر أصد جمع لك أسد مانم فات نن بسول نن لن واي دي سول نن جين دي sul nañ docteur dañ dan ar di défendre nit ñi ba melni ay gaynde dañ dan faj ku febar di dimbalé ku nekk ci jafe-jafe eh, ba melni ab docteur kon usat jamu la ci asin, al asi moy kuy faj moy ab tabib famah mali sama sëfukaay ba'dal mataya gana warukaya al mata moy ganaw gi almatiyatu warokay bi matiyatun mom lañ jamu mataya ay warokay wala matiyat ni jamu salim legi neena man ko amoon ay warokay la ay gilem di seuf samay bagage di dem tay nak sama kay moy sama ganaw gi Luma ma bëgg yenn rek mako sama bop subhanallah mo ta mu ne fa mahmali sama al mata moy ganaw gi ba'dal mataaya gana warukaya, wa mawtini sama way al hadid moy khuri legi ci bir khuri lay dekk ba'dal yafa'i gana tundu gana bo xamne dama da dekk ya. ci kaw ciati montagne legi ci khuri lay dekk dëkk adlo won ci ñom ku womal rek ku womal ta tabe mooy dekk ci kaw montagne e, kërëm di fecc fu ko gan seené ci àll bi xamné ko ku dëkk dem pour mu ko ku amul dara daraan dëkk ci biir xur yi mel ni koy nabu wa yi samay cuuc cuuc cuuc doomi ganaar bi door a judd wala yu mel noonu doomi borom dunq yooyu faraq moom lañ jamoo afruq wa yi samay cuuc kinaaya nag ay doom la ci jublu maa tatali duñ gàttañlu tashtaki di jàmbat bu san wàññi sama daal ñi ngi dëkkee jafe-jafe wala yaatali wala yatali ulul fadli minkum wa saati an yuutu ulil qurba loolu suuratu nuur wala yatali bu mu gàttañ lo bu mu gàttañ lo maa tatali du gàttañ tashtaki di jàmbat bu san wàññi lawoo ko fii kulli yawmin ci bépp wamit boo xam ne aji xuy la aji melxati la ida daa ndem woona alqaanitu bas lu firi alqaanitu aji jaamu yàlla alqaanitu aji jaamu yàlla walqaanitiina walqaanitaat way jaamu yàlla yu góor yi ak way jaamu yàlla yu jigéen ida daa bu woowee alqaanitu jaamakatu yàlla bi fii layli ci guddee mawlaahu boroomam ñoom naadawhu ñu woo seen borom bi dam in ci ya yafiit boo xam dana bëbb kii jaamu yàlla guddi di ñaan yàlla ñoom ñi ngi woo yàlla ci seen rongañ ñi ngi jooy ngir jafe-jafe naan ko yaa raziqan naabi yow mi wërsëgal cuuju baax fii oshihi mbir mu mu nekk ci biir pattàggam wa jaabir al azmi yow mi yax alkasiri yaax bu ñu damm almahid bu fañaxtiku mahid mooy lu damm woon dammuwaat li damm wéragul dammuwaat loolu mooy mahid ñu naan yàlla yow mi nga xam ne yaay wërsëgal an naab dañuy wax ne baaxañ bu toccee ba ba ba cuuj bi génn ci nen ba day weex tal te baaxañ daa ñuul weexaayam bi mooy tax Euh, ya yaayam ak baayam dañ koy bàyyi day mel ne dañ ko dul xam waaye nag yàlla moo koy yoral boppam di ko dundaloo boppam day day ubbi gémmiñam rek weñ yi ñëw di dugg ci gémmiñ gi mu leen dunde loolu ci lay nekk ba am juróom-ñaari fan daal di couleuram soppeeku bu amee juróom-ñaari fan couleuram soppeeku mu ñuul ci la ko ndey jeeg baay ji door a nag commencé koo toppatoo yàlla yow mi wërsëgal doomi baa boobu ba mu juddoo rek yaayam sànni na ko fële bàyyam sànni ko amuduñ ci moom soxla ngir xàmmewuñ ko ngir kulóoram bu weex waaye teewul nga ubbil ko gémmiñam yam war a dundee ñëw di dugg muy lekk ba kulóoram soppeeku mu jël kulóoru ñaari way juróom yàlla yow miy def lool yow miy jàng yax bu damu damuwaat atix dogalal lanaa ñeel ñu allahuma yow yàlla man koo xam ne arduhu daram naqiyun aji sadla, la raxidun luñ raxas من دناس الذم تتلي مبغاني يلا يلا نيو دوغال الغربو خمنا دال برم دربو ست ويتشلا كو ست لا تنغاني يطفئ دانا فاي نار الجوع سورا وقيف عنا ورسنو ولو بمذقة دونت أم جرلا من حاضر تي صوم فرح أو مقيد ولا صوم وقمنا من دندي أكدا عمله يالنا نيو دوغال غور بو نيو فاجال سون خيف دون دي مافخا ام نجار نجارو سو من حاضر حاضر موي سو مو فرح او مقيت ولا سو مو ديندي داخ صباي دوم دي نيوم ني لا نيو وويه سن بروم غودي مو ني واو فهل فتان داخ امنا تي ين تيام سو خامنا يكشف دنا وجني ما ليغا خامنا نابهم جاتنا لين ويعلم دنا مانغا الشكر كانت الطويله غو غودو العريض غو ياتو هو الذي جننا تي يالا مي خامنا تعنو دنا ترعلو وعنت الوجوه للحي القيوم وعنت ترعلو ما يجن جال من خمنا تعنو دنا ترعلو النواسي جبي له نيلكو يوما بس بابا خمنا وجوه الجمع قركنا من بولوما ين يسود وينولن وبيض أك يأي ويويخ ما يجن جال من خمنا مملا نبودي ترعلو تكنا مم bés penc ba nga xam ne way texe yëpp seen kanam day weex way texe di seeni kanam ñuul yawma tabyaddu wujuhun wa wujuh maa ngi gën ci yàlla lawlaahum bu duudoon ak ñoom xale yi lam tabdu du feeñ lii ñeel ma safxatun wàllug lex du ngeen gis sama lex duma ñëw ci yéen di leen ñaan wala tasaddaytu duma gaar li nazmil xaridi ngir nos way qaala rawi aji net li muy nee na fa wallahi gëñ naa ci yàlla laqad saddaat qarna qarna bi abyaatiha ci baytam yi acshaaral quluub dogiti xol ya qarna suñuy xol ba mu nekk ay dogit ci bayit yu daw yaram yi wastaxrajat sàkku naa génne xabaayal way nëbbu poos ya lañ doon denc ci biir biir poos yi mooy xaalis ba génne nañ ko jox xatta maaxa ba may na ko man koo xam ne diinoo aadaam mooy al imtiyaaxu ñaan al imtiyaaxu sàkku may koo xam ne sax da daan ñaan mësta xalaata maye tey génne na dara may ko maaxa mooy may na nga teg ko iftaala muy imtaaxa imtiyaax muy sàkku ak may ñaan comme na ko xamee ca chara chara chara day firi jaay na wane ishtara muy firi jënd na hmm. wartaa sigiri na li ref di xaa cig mayam man koo xam ne lam naqalhu njortu wuñ ko woon yartaaxu muy sigréwu koo xam ne mësuñoo yaakaar ne dana maye tey may na ko ànd ak mbégte ànd ak kontaan ci la muy maye falam mafaaw ama bi nga xamee ne fees na dell jay bu xaa poosam tibran ci wurus wa awlaaha méngale ko Kulun kep minna cinyun ci ñun biran ak tawallat la deddu tawalla nga yokku taw tanis nga doon am tawalla at ñaar sukkon buñ dajé nga xasaf bu tawallat dëddu if'au if ama mooy fees na if ala jey posam tibran ci wuruf wa awlaha kullun minna birran tawallat la dëddu mbir moom dana topp ko al asaaxiru ndaw ya wa fuuha te mbir moom gémmiñam faaxirun aji ubbeeku la bi ci cant ma nga dëpp ànd yu ndaw ya ubbi gémmiñam dañu sant wa fuuha gémmiñam faaxirun aji hubbi la fashra abbati mu yuqoolu yuqamtiku aljamaatu mbooloo mi baxda mamarriha gannaaw ak rombam ila sabriha jëm ci ak loobam gannaaw bam jàllee mbooloo mi nag di bëgg xam nag dëgg dëgg kii mooy kan ak ndax li muy wax lu wér la wala déet fashra abbat yuqoolu na tàllal na ay doq aljamaatu baxda mamarriha gannaaw rombam moom màggat bu jigéen bi ila sabriha jëm ci loob ko li tabluwa ngir nañ nattu mawaqia birriha tabbiwaayu seen njekk teraanga ji ko defal fan lañ ko def deug deug mom lañ bëgg xam fa kafaltu ma warlu lahum ñeel leen bistimbat sirri ci ballalu secret almarmuz ba di buñ junju wa nahatu mabur aqfu di qaintu asar al ajuz jeexiti magan mu jigen haris neena man ma leen warlu ne tok leen rek man dana ko gëstu ji ba indi leen xabaare ma jog top ko hatta tahat muy dem ba day talu na yegg na ilaa suuxin jëm ci mars dem na ba yegg ci marché boo xam ne muxtasatin aji fot la bil anaami ci bindeefee ma nga fot ak i bindeef mooy ma nga fees ak i nit muxtasatin buñ jagleel bi zixaam ci buuxante ba mu demee ba ca marché ba rek ak nit ñu bari nga fan xamasat mu nuur fil xumaari ci biir lëg ma Eh, nit ñu bari ñi lay niru rek lëggum ndox mu dugg ci biir nit ña wam malasat mu mu ko mina sibiyati ca xale ya al a'mar ya doa way dof mu mu rocceeku bàyyi xale ya reer leen ca biir nit ña summa aaja top mu jadd suma aaja top mu jadd aaja moy jadd na تمرون الديار ولم تعوجوا كلامكم علي إذا حرام تمرون الديار ولم تعوجوا ولم تعوجوا ميتا جدلا كلامكم علي إذا حرام ثم عجبتكم جد بقلوب بال عندك في عقل إلى مسجد جمتي جاك جو خمنا قارن أجي ويت fa amaatat mu dañal aljilbaaba malfama muuraay ba dafa jilbaaboon muur ba muuraale kanamam muur boppam ak kanamam ak yëpp rek da ñaari bitam dong di feeñ mu dindi muuraay ga war dat mu ñori an niqaaba ba tay muuraay ga al burqo al burqo an niqaab Euh, wa wa ana man almaxuha maa ngi koy gendeeku di ko xool min xasaasil baabi ci bën bëni bunt bi ma nga ca biir maa ngi ci biti di ko xool ci bën bëni bunt bi wa arqubu maa ngi fooglu maa langa xam ne sa tub di xaltat na koo feeñal minal xujaab ci kéemtaan ajab mooy kéemtaan xujaab mooy lu yéeme lool ba jéggi dayo maa ngi bàyyi xel ban kemtan lay feñal falam man sarat bi nga xamé né e, ñoré ko na manam dañ na uhbatul qafari bagasu e, tukki ga wala uhbatul qafari bagasu kersa ga lako ko diko di sutural ba falaman sarat bi nga xamee ne wuññeeku na uhbatul xafari bagaas yi kersa ga raaytu laa gis mu xaya abi zeyd xar abu zeyd xat safara feeñ na ndekete yoo du sax jigéen góor la abu zeydin la xàmmee naa ko gis naa xar kanamam fa xamamtu ma yittewoo bi an ahjuma alayhi ma song ko li uannifahu ngir naa ko yedd ala ma ca xam ne ajra dawal na ko wala ajra dawal na ilay jëm ca moom ma yittewoo dugg rek yedd ko ngir li muy def waaye ba ma gisee faslan xaa mu jaaxaan mu tëdd jaaxaan islin xaa al mutamarridin jaaxaanuk way fetteerlu ya summa rafaa topp mu yëkkati aqiiratal mugarridin kadduk waykat ya yëkkati kàddoom di way aqira mi ngi bàyyi ko ci eh, aqru maxquur maxquur mooy koo xam dañ koo jam gaañ ko benn waay lañ jam mu yëkkati tànkam yooxu dañ koo jam ci tànk mu yëkkati tànk ba yooxu ngir métit wu tar ci la arab jële eh, baat bi di ko jëfandikoo ci képp ko yëkkati kàddoom rek ñu ne rafaa aqiratahu waaye cosaanu baat bi ñu bàyyi ko ci koo xam dañ koo jam wan dafa mu jañu yunshidu di sadd mu naan yaa layta shi'ri adahri axaata ilman bi qadri wa hal dara kunha gawri fi lqadci am laysa yadri yaa layta shi'ri aka neexoon ma xam adahri ndax sama jamono axaata peeg na ilman ci xam bi qadri sama kem ndax jamono xam na dëgg dëgg man maay kan waxal dara ma ndax xam na kun ha xawri dëgg dëgg xóotug sama xel fil xadan ci wor am walla lay si yadri xamu ko kam lu bëree bëri xadd xamartu not naa ci carte nal ximaar not naa ci carte banihi ay doomam moom moom jamono ay doonam doomam yàgg na leen nax mel ni ku doon carte ak ñoom ba gañe بخيرتي تي سامام بخاي وبمكري سامام بخاي وكم لو بري بري برستو فاجنا بعرف تنجك عليهم وبنكر اكلون شيب لا ما فاجنو يور ملكانو باخ دلن وار دي واخ يو ام صلو لا ما يور ملكانو دوي وار كوم ني مو ديف تاي ملني جيجنت غور لا اصطاد قوما بوعظ واخرين بشعري واستفز بقل عقلا وعقلا بقمري astaadu nee na danaa rëbb xawman aw nit bi waxdin ci waar wa aaxarina ñeneen dama leen di rëbb bi shi'rin ci way wa astafizu danaa sàkkoo woyofloo xaqalan am xel bi xallin ci benegar wa xaqalan beneen xel bi xamri ci sàngara ñenn ñi waar laa leen di rëbbee ñenn ñi dama leen di wayal way ya neex leen ñenn ñi ay pexe yu ndaw rek laay lal am la ma bëgg ci ñoom mooy mu la niruleeg benegar ñenn ñi nag pexe yu rëy rëy sax laay teg moom la ñu rëloob sàngara wa xallu benn gar cosaan bi sàngara loon wataaratan léeg-léeg ana saarun maay nekk saaru wataaratan léeg-léeg uxtu saari man di nekk mbokkum saaru ma muy xan saa u léeg ma nekk góor di saaru bnu amru saaru ca jaahiliya daa faatu woon mbokkam ma xan saa u mooy bu jigéen bu siiw boobu di ko way léeg-léeg maay nekk saxru maanam góor laay doon wataaratan léeg-léeg uxtu saxri ma nekk mbokkum saxru ma muy xansa xansa euh, muqadramatu la maanaam waykat loon ci jaahiliya gannaaw gi lislaam fekk ko fi mu dugg ci lislaam euh, dund jaahiliya dund lislaam waykat yooyu dañu tuddee al euh, way na mbokkam mi ay xasit yu bari ak ay bayit yu daw yaram am na bu mu indi fii sharx bi wa inna saaran la tatammu lhudaatu bihi ka annahu alamun fi rasihi naaru nee na saaru ab royukaay la alhudaat ñi gindeeku ñëpp ci moom la ñu roy daa mel ni rek alam muy montagne bu siiw bu ñëpp xam fii raas yi nekk na ca catu montagne ba naarun sawara ñu taal sawara foo toll guddi seen ko noonu la saaru ràññee ko bokk na ca wayam yu foore yudhakkiruni tuluu shamsi saaran وأذكره لكل غروب الشمس أنا فنكوك جانت بدف ما يفاتلي سعرو ngir fenkuk jant mooy waxtu wi ñi lokki di attaqué ay guerre te jàmbaar loon ju daan guerre waaye wa azkuruhu li kulli ghurubi shamsi sowuk jant waktu waxtu wi ñi taal pour togg ay bernde ñeel gan ñi saxru kon ku tabel woon ku daan bernde ay gan la moo tax dama koy fàttaliku ci waxtu sowuk jant bokk na ca bayitam ya walaw la kasratul baakina xawli ala ixwaanihim la qataltu nafsi wama yabkuuna misla aqi walakin uazi nafsa fihi bittaassi ila axiriha benn shaar indi na ci bay sra bi benn benn bayit dafa mujj waykat yu bari dañuy tudd saxru ak di di jël ay misaal ci jooyam yam doon jooy mbokkam ma jàngooca hamziya ana xasaanu matxikum fa ida noxtu alaykum fa innani alqansaau man maay xasaan ibnu saabit al ansaari radiallahu anhu ci bu ma leen di tagg yéen waa kër yonent bi fa ida noxtu alaykum ba ma leen di jooy di fàttaliku la xewoon karbala ak ñoom fa innani alqansaaw damay mel ni qansaaw nam leen jooyee mbokkam ma saxru moo tax waykat bi it moom it أبيت على سعر المبارك باكيا كما كانت القنثاء تبكي على سعري لما يفنان تبدأ مبارك الوي دي جوي كما كانت القنثاء تبكي على سعري كم القنثاء دون جوي سعره ولو تخ لك لما نك سعره لك لما بكم ما ولو سلكت بمسوب سبيلا بين يون رك مألوفة muy lu ñu miin tuula umri sama diiru dund laqaaba kon sooy xidxi sama bantu fet wa xadxi ak wa daama sax xusri sama ñàkk wa xusri ak sama perte bu doon benn yoon benn façon nax rek laa xam bu yàggee day siiw dootuma mën a nax kenn bu boobaa bu ma jugee di naxi kenn du sotti li may wut du ma ko am la jublu ci laqaaba xiddaxi wa xaddaxi wa daama xusri mooy samay jafe-jafe mooy ak ñàkk wa xusri ak sama perte فقل علمنا نلقو خمنا لا ما يدنا كما بغى يدنا كو هذا لي عذري ما سمانغانت فدونك جابل دونك جابل بمعنى قذ اسم فعل امر الله عذري سمانغانت قال الحارث بن همام ننا فلما ظهرت بيغا خمينا فيننا يرنا على جلية أمره تي دغ دغ ميرم وبديعة امره اك اجي يمي نجومبم لوي لوي جومبل لو جومال لي مو موي الامرو موي نجومي وما اغلى خبر الزعر فطار نكو في شعري توي من عذري لم وعد موي غانتم علمت لاقم ان الشيطان هو ان الشيطان المريض باجي فترلو لا يسمع دو ديغ التفنيد نارلو كوكاي التفنيد يد كوكاي يد ديكو فنلو دولا ديغ ولا يفعل الا ما يريد لم بغ رك لاي داف موتا دا ما بايكو نون فصنايتو ملم عيناني سما غوك سما بومو لاب ila ashabi dem ci samay gaay wa absastuhum may yullil len ma la nga xamne asbatahu sa'al nako ayani sama jakarlo lima gis jakarlo ak mom ma leral len ko fa wajamu ñu wedam ñu jaaxle ba mënutu ñu wax li dayaati jawaisi ngir sanku maya ya. ah, dañ ko don may ngir japp ne ku sonu la ku yërëmtu la comme nañ ko won gor la guy lu nax fa wajamu ñu wedam li dayaatil jawaisi ngir sànku maya wa taahadu ñu kóllërante xala mahramatil ajaisi ci xañ màggat yu jigéen yi ñu ne daal des ni ki tey buñ mayate am màggat mu jigéen dara ñaax gu wow mooy lakk gu tooy seen may nag sa dëgg-dëgg sànkul fekkee dañ ngir yàlla moom al maqaamatu al baghdadiya maqaama fukkeel ak ñett mu askane ko Bagdad rawaa solootina alxaaris ibnu hammaam qaal nee na nadawtu penc woon naa